fekkiwul kenn yéen a koy fekk ji sifflet moo leen boole moo leen tàqale waaw léegi nag muy ñoom ñu xool situation bi laajte ñaar yu bëri tax pare nañ mu ne ko waaw arbitre sifflé na ndeysaan Gackou 2 ak Pokola Baldé Gackou 2 Pokola boot cumukaayam soo déggul mooy maanaam soo déggul mooy soo déggul mooy Gackou 2 moo ñu wan ginnaaw Pokola lañ jàkkaarlool xeex nañ ñoom ñaar combat xale day gaaw waay dasan classico la ama classico par sa Real la waaw géej waay Pikine la xeex nañ ñoom ñaar xeex Gackou nga Gakko ngi dóor ndeysaan Gakko ngi dóor ndeysaan dóoral ma dóor ba dóor mu daan doom ba dóor mu daan doom ay waay Gakko dóor Pokola ndeysaan Gakko dóor Pokola xeex na ñoom ñaar waaye Pokola da ngay dóor muy ñëw Gakko ba dóor dóor mu daanu Pokola ba dóor dóor mu daanu Pokola ba dóor dóor mu daanu Pokola génn na sa Pokola Gackou 2 Pokola Gackou 2 ñu xool lu xew ñu xool lu xew ñu xool lu xew ñu xool lu xew ñu xool xew lu xew xew ñu xool lu xew ñu xool lu xew ñu xool lu xew ñu xool lu xew ñu xool lu xew ñu xool lu xew ndeysaan ñu xool lu xew ñu xool lu xew lu xew lu xew la fi ñu moom la ñuy déglu moom la ñuy déglu arbitre dañu xool lu xew baax dañu xool ndax bu ñu koy dilu bi fees bi feesu gàkku feesu pokola bi dafa direegu def la ñuy xool fees bi fees bi la ñuy xool pokola daan na ko pokola daan na ko pokola daan daan na ko